képp koo xam ne bëgg nañoo topp bu abonné ci seen bi rek di Mbacke Kadior TV lu ñu dugal ci dana ko am en exclusivité jërë ngeen jëf أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم بتقوى الله فقد من اتقاه وأترك من المعاصي فاقترب من سام الله ولا تموتوا تعرف في تاهته رضاه ونهوا عن اتباع هوى فقد ظلم من اتباع هوى وآمركم بالتحديد توبتي قبل أن يبلغ الأجل المنتهى واعلموا يا عباد الله أن من ذكر الله ذكر وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله واحصروه ثمانكم عساه فإنه ثمان قال خيره وكسر بلاه واستغال كل منا بطلب دنياه وأضل غافل عن الموت فلا حول ولا قوة إلا بالله وصار الدين غالبا كما كان مبتداه وأصل واخرة حيلتاه فيها من تسعر في الفضائح والسر علينا في الجوارح والحاكم هو الله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وفي الحديث ربهم من سقاوته جمود العين وقصر القلب والحرص وطول الأمل وفي أيضا إن الله يبسط يده بالليل ليتمسوا النهار يبسط يده بالنهار ليتي مسلم مسلم ليتي حتى توسنت من وحدي بها يغفر له لي ولكم ولجميع المسلمين الحمد لله الذي استجاب في حجاب جلاله فلا تره عيون وتفرد في صفات كماله فلا تغلطه ظنون احمده سبحانه وتعالى بمهامدي التي يسكر بها الحامد واذكره بذكر الذي تقول به العيون واصل لا اله الا الله ولا شريك له الحال ما كان قبل ان يكون واصل ان سيدنا محمد عبده ورسوله يا لم النبي تصرف الانبياء والمرسلين allahuma fa salli wa sallim alayhi wa ala alihi wa sahbi salaatin wa salaaman daa'iman ila yawmi yub'athun amma ba'd fa yaa ayyuha nnaas ma haadihi l-qaryatu allati antum alayha aakifuun tasma'una maa yansaa kulla jum'atin wa antum anhaa mu'riduun atazunnuuna annakum fi dunyaa mukhalladuun am tatawahhamuuna annakum laa tamuutuuna wa laa tub'asuun ayna l-anbiyaa ayna l-awliyaa ayna l-mursaluun ayna l-muhammaduun ayna al-abrar al-muqaddamuuna al-axyaar wa hum lana taa'ibuun متقطعون كل نفس سائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وفي الحديث أكثر من قولي لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ولكنها موتاكم وفيه خيركم من تعلهم هو عصر عنهم وصركم من تعلهم هو وصاهم يخفو يخلو ولكم ولجميع المؤمنين ma ngi leen di nuyu di leen saare di leen masaw sunu mbokk bi fi jóge bisin tey doo nga mi ngi woon fii kenn ku ne na jàpp ne moo cay teew loolu lu ma ci bëgg wax mooy na ku ne góorgóorlu ci lu xaay boo ko ca loolu fekkee du rëccu dara àdduna ji yi nga faa fi di ko jëkkante du dara du dara ku lu mën a lay fani lu ne ci kawam rek day jeex bu ko defee dañ lay laaj la nga doon def lépp amul dara luy neen boo demee te te sow saar am na fu ko sëñ Tuubaa di misaale ci ab tàndarma ab tàndarma am na deru weex am na lu mel ni lu ñu baram wala lu ñu raw def ko ci liiru xóot loolee képp nee dañ ci dañ koy dañ koy nag kenn ku ne war nga jàpp lu dara na na tegu na tegu ci yoon maa moom du jëriñ dara ku moomoon ay milliards booy tëdd lañ nga ci mën a lekk am ñaar si mën na ko lekk te boo tëddee doon naa yaakaar ne balaa ëllëg ñu dal sa kaw wala nga am am na war nga xaar lu mu lekk lu loolu suñu borom moo garanti wa ma min daabatin fil ardi illaa alaa llaahi rizquhaa wa ya'lamu mustaqarrahaa wa mustawdaahaa kullun fii kitaabin mubiin luy nooy ne ci kaw ak lu mën doon maa maa warlu ak ak dundam maa xam fu ma koy denc bés bu ko soxlaa mën ko jox te daal du yàqu kon nag nan tuub te dina wax na jéggalante fii la de balante àq fii moo gën a jàppandi dem ba fële bu ñu demee ba yomal xiyam keneen ko ne la la nit ci yorol maanaam doo ko mën a baal fii nag ko mën a baal naa ko baal bu bu kenn xeeb bu kenn mooy li nga xam naa ko fi amiin